ma gis dund gi ma gi ma dundee gi may dundee gën a neex dund ñi nga xam ne ñu ngee dund te nangoo ñoo dee ko man loolu moo tax ma xam ne man sant yàlla laa war a def moo tax ma alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi leen di gërëm ci seen xalaat maa ngi leen di gërëm ci seen xalaat bi nga xam na xam naa ne xam naa roy waay xam naa ne itam wóor na ma ne bu ma fi nekkul lii fi nekk du fi jóg xam naa ne itam dinaa ko sax na meññ na ñor na te da ngeen ko dundee loolu mooy dundoo ji looloo tax ma tuddee ko dundoo ji lu sëriñ ma ko digal ndax man amuma sëriñ wax dëgg nag ndax xamu kenn ku ma xeeb su suma sëriñ la sëñ Touba sëriñ la suma sëriñ la El Hadj Malick Bou Kounta Ndiassane Limamou Laye ñooñu ñëpp dama leen nangul na ñooy ma sëriñ xam nga bën du kenn. comme duur kenn koy wax na moom la doo ko xam li tax loolu ma wax ko sëriñ mooy ki lay li lim lay jort li lu mu la wax nga ne dëgg la te da nga def loola bon te man maa ngi amee nopp te lu ma wax ma ne dëgg la maa ngi amee lu ma gis ma ne dëgg la maa ngi lu xeeñ ma ne dëgg la maa ngi lu mu lu mu saf ma ne dëgg la gis nga yooyu nag mooy melaw sëriñkat ci nit ki ki nekk ci sa jëmm dala jëriñ té lam la jëriñ lim la wax nga né dëgg la dila jott li yëf yi nga man ko xam nangu ko to do ko mëna bañ di nga koku nañ ko topp te buñ ko nangoy boole keneen di nga yëf yi naxant rek la naxant rek la waye yeen bu len nangoo naxante bu len naxante man ma wax na maari fa la doon doxé xamoo deewuma dama sensé risim waaye du nit ku ba dootoo ko gis waaye man yàgg naa changé régime nekk ci régime bi ba yàgg ma changé régime doonul dee waaye bu boo demee ci xam bi itam da nga wax ne kooku maa newoon foofu neewatuma fa dee naa